di Mame Mbaye Niang mm-hmm. procès boobu bon man maa ngi xaar ba le 16 en tout cas ñun les 15 dinañ dinañ préparer dem gunge suñ président ànd ak moom. Euh, euh, en comme dinañ génnati. waaw dinañ génn. mais li fi xewoon. lan moo euh, xewoon kan moo ko toj est-ce ñun ñoo ko toj. tojoo leen ko mais. ñan ñoo ko toj. force de l'ordre yi te et puis yéen journaliste yi ba léegi waxoo leen ci toj gi de. mais force de l'ordre yi ñoo ko toj. waaw léegi yéen la moo tax journaliste yi ba léegi waxuñ ci toj. bi ñu toj suñu oto président pour sa sécurité maanaam yóbbu ko si jàmm si këram. lan lañ wax ñu ne dafa am ay nervis yu taxaw ci tunnel bi du loolu lañ wax ci loolu la loolu la gendarmerie wax suñ sukkandikoo si le président Ousmane Sonko wax. te hmm. te ñu bëri si seen waxkat yi loolu lañu wax léegi ay nervis mën a ñëw ba ci euh, au cœur de la république taxaw fa nervi yi fu ñu jógee gendarmerie mënul dem lijjanti ji nervi yi Ousmane Sonko wax na leen ko nee na su ngeen amee ñu ngeen di jàpp dem leen jàppi nervi yi ngeen bàyyi ñun ñun dañoo am droit circuler la constitution sénégalaise ak moo ñu ko may dañ koy def buñ tooñ doomu aadama yi fii bu ñuy jàpp nañ jàpp ku tooñ bu ñuy dóor nañ dóor ku tooñ bu ñuy tëj nañ tëj ku tooñ ku tooñul nañ ko bàyyi yàlla yàlla bëggul tooñ. léegi kañ ngeen nar a génn le 15 ngeen di préparé. mu ñun ñoo ngi xaar président Ousmane Sonko. le 15 le 15 dina woote. dinañ dem gunge ko ànd ak moom di xaar Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang sàcc boo xamante da ngay porté ati plainte loolu fu mu am suñu 29 milliards mu ngi ko mu ne ko France France ba pare toog naan day porté nit ñi. plainte bi ngeen teg loxo la. lan sàcc bi ngeen teg loxo la dañ koo teg loxo kay. léegi ay rapport ñoo ko épinglé dafa sàcc lan preuve yaa ngi fi suñ demee suñ président doo ko génne ala kulli haalin li ñu ci metti ñun xam nga dossier bi lañ moo ñu ci metti hmm. coono bi fi euh, procureur de l république def ndax am na ñaari chef euh, d'inculpation yoo xam ne moom moo ko ci yokk pourquoi moom lan moo ci yoonam. Hmm. ana procureur ak yokki ay chef d'inculpation lu ci yoonam. suñ fàllu wax leen ñun billaay ñun dañ ñuy tooñ dañ ñuy tooñ ba ci kanamu yàlla dañ ñuy tooñ te yàlla xam na ne dañ ñuy tooñ moo tax chaque jour. Ousmane Sonko ko ngi preuve bu baax a baax. ñun Ousmane Sonko wax lu mu am amul preuve. Ousmane Sonko mi taxaw Kër Massar mu ne euh, euh, preuve yi. wala comme sax affaire yi si internet laa ko gisee exactement mu ne si internet la ko lire internet du amee ci preuve yow li nga soxla preuve dem internet am ko di mais est ce que internet déclassifier neen boobu de li nga xam ne moo di rapport maanaam est ce que rapport boobu am na xaatim bi nga xam ne itam ah, xam na ne rapport boobu si li nga xam ne moo di IG rapport boobu daal Amadou Ba toog na assemblée nationale mu ne rapport am na toogaan na set TV ne rapport am na Mame Mbaye Niang mi mi mi concerné toog na nee na rapport am na comme que ñoom nee nañ rapport am na rapport boobu dafa épinglé Mame Mbaye Niang yor nañ preuve dina génn le 16 amul problème mais tooñ ji lañ war a baax ana procureur ak dem ak et puis seen samboulement bii ñu def fan yi ci justice bi changé kii yóbbu fële changé kii lii yëpp Ousmane Sonko la Ousmane Sonko tey bu waxoon bàyyi naa politique. Hmm. billaay ñii dinañ noppalu. bu xëyoon rek tey na bàyyi naa politique ñu bëri am na am na am na juge yu bëri yuñ ah, sànni ci àll bi ñoom ñoom euh, euh, Souleymane Téliko ñoom ñëpp dinañ leen indiwaat. Euh, mais euh, oustaz. Euh, mm-hmm. jàppoo ne vu que affaire yi yëfu privé la. Mm-hmm. ñu bàyyi li nga xam ne que moo di yoon wàllu yoon daal def liggéeyam wala gisoo loolu. ñun tere ñun terewuñ yoon mu def liggéeyam yoon kay mu ngi def liggéeyam comme que yoon moo ngi instruire. nen dem leen chambre de criminel ñu àtte leen wala yoon mu ngi deful liggéey mu ngi def. Mame Mbaye Niang Sonko. bon Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko loolu du du information loolu du jour. ñu nag maam gis nga keroog bi bi ko woowee ci Mame Mbaye Niang bal la génnee. di football parce qu'aujourd'hui aussi risque de trouble public yi nga xam te ne na fi mars 2021. ñi ngi tit à mu daal fi xewat euh, mars 2020 loolu mu ngi aju ci ñom rek. buñ buñ wowe jam réew mi moom ci loxoy Macky Sall la ne mais si toutefois que ñu daal di juger sen faveur dara du xew mais suñu juger si euh, suñu juger si euh, Mame Mbaye Niang gagné. mais ce mm-hmm. sera loo xam ni kenn xamul exactement fan la ko <laughs> ah da fek buñ tooñee ñun. ñu fekkee ñoo tooñ ñu ñu gisé ñu fekk nekk suñ faveur am problème mais tooñuñ. comme soo leen indiwul ñun tooñuñ. preuve si ñëwul yéen a tooñ. yéen sénégalais yéen a waroon a génn preuve si ñëwul yéen a tooñ. ma ne yéen a waroon a génn bañ lii kuy sàcc seen 29 milliards taxaw di porter ay diffamation yéen a ko waroon a bañ comme que bañoo leeku ñun léegi ñun ñooy sénégalais dinañ génn xeex ñun ñoo koy xeex suñ fàll amul problème dinañ ko xeex Ousmane Sonko ci réew mi la nekk la la dëkk ci réew mi la jàngee fi la liggéeyee 15 ans sàccul benn dërëmu Sénégal. Hmm. am amul kenn ku ko fi ñemee wax ci réew mi. ku mus a liggéey ci nguur gi amul kenn ku ko si musee wax bu buñ la jiitaloon boutique boo xamante ni nguur gi moo ko moom sax ñeme wa taxaw wax ko mu ne fukki at ak juróom bu ma ku ma jox benn dërëmu Sénégal ma jël waxal. musuma sàccal état bu Sénégal benn dërëm musuma koo lekkal benn dërëm li ma am daf ma lew doom ma jox ko sama njaboot na ko keneen wax boobu ba léegi sëñ Fallou bi ngeen newee ci réew ba léegi mosoo dégg ku ko wax mosu déggoon naa Ibader Thiam waxoon ko ca at yu yàgg mu ne képp ku wax ne ku liggéey ci état ba pare ne euh, lekkoo ci benn fukki dërëm euh, waxoo dëgg Ibader Thiam waxoon na ko diine jamono bu wal fajiri waaye Ousmane ko wax na ko su fekkee lekk na na état dem seeti ndax lekk na toppee nañ ko fu ne fu ñu xam luñ mën nañ def lu ne dem nañ sax jëli benen Ousmane Sonko ne mom la du mom de bi bi yalla moko fi indi. te bi mo fi opposé wu don président yeeg jàmm incha 2024 le 25 février Ousmane Sonko moy den président au Sénégal ala kulli halin alors euh, euh, ñu gis ni li nga xamné rek moo di peut-être yéen oustaz yi ngeen daal fi teg li nga xamné ne rek moo di euh, doomu daaré exactement. Mhm. Bamba mon daal dem exactement si li nga xamné que rek moo di Ousmane Sonko ils sont prot